يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا سيدي يا في توق الشيخ يا حبيبي يا في توق اليونان يا نور yaa fi toogal yàlla ya mawlaaya yaa di sangu jamono Seydi Muhammad El Cheikh yaa imam al mahdi yaa ibnu Cheikh Tijaan yaa imam al mahdi yaa ibnu Cheikh Tijaan yaa Seydi yaa fi toogal Cheikh yaa habibi yaa fi toogal عيون يا نور يا فكوك يلا يا مولايا يا إكلير السيدي محمد الشيخ إمام به يا وري مدينة برون فاس مولتين يالون فمكة جرنا جودي جيل بولي نكتة الدنيا كون جاتنا ngeen ñu tëbb ci leen tànn suuf wallaahi jant leer la bu xëy bu di niite lépp luy teexee ya imaam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya imaam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya sayyidi yaa fi toogal Cheikh yaa Habibi yaa fi toogal yoonen yaa nuuru yaa fi toogal yàlla yaa mawlaaya yaa di sangu jamono Seydi Muhammad el Cheikh mon cher Didier. القتل وعتق القتل ما سبق الأزرع بالعقل ولا هادي الأزرع المستقبل علي حق قدره ومقطع العزيز اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق القتل ما سبق نزله بالعقيل والهادي الى اسرارك المستقبل حق قدره وبالطعن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما القدم لما سبق ناصر بالعقيد والهادي الى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدره ودقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق القدم لما سبق ناصر بالعقيد والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد القائل ما بقى قدم ما سبق نذرا بأقيم والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى عليه حق قدره وبقاع قصره اللهم صل على سيدنا محمد في الفتح لما وشق القتل لما سبق نزل عبد الحقيق ولا هادي الى اسرارك المستقيم على آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الفتح لما أغلق القدر لما سبق نازل بلاده إذا لا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد للفتح لما أطلق والقدم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفقير لما أطلق والقدم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد البدر ما أطلق والقلب لما سبق الأجر بحقه والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مغلق وقبل لما سبق ذات الحق الحقيقي ولا هادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق وقد لما سبق نسرك بالعقيد والهدي الى اسرارك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقد لما سبق نسرك بالعقيد والهدي الى اسرارك المستقيم وعلى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 اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وهي قلة متعلقة عائد لمركز القرون والمعاني والنور الأكوان متكونة عن النساء في أقرباني أنت في الأسائل منذ الأربع المعلات لكل مطارد من النور والأوان نور الكلام الذي بلغت به كونك عارف مقصد المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجمع منها ورش حقائق غير معالج اقوام ثابته اللهم صل وسلم على ترك الاقيام غير الاوام بما ذلك منك اليك عاد النور المتنسب صلى الله

صلاة به وتنصر صلوات

اللهم صل وسلم على قلبك ربنا كبرا وما لك من جيلك تدري المخلص صلى الله بالربانية والياقوتة متحققة حائطة بمركز القيود والمعاني والنور الأكوان متكونة عن صاحب الأقرباني البرق الأصائب وصل الأربع المرأة لكل مبارد من القول والأواني والنور كلام الذي مرت به كونك العاجب في المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي ترجما منها رسل خلق عين المعلم الاقوام سارقة الاصحاب اللهم صل وسلم على الحمد الحق الحق ذي الاعلام الى جنبك اليك عاد النور متعزم صلى الله الخليل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 sëti ja aleykum tabarakallahu ñi ngi dellu di duyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di leen ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu nu tal te namm nag ci ñun ñu war ko di sant la in shakartum la azidannakum waaye mu mel ni sax sant bi ñuy jëme ci moom xaaruñu rekk pour mu dolliñu pour delloo ko njukkal la ndax yàlla moo njëkk delloo boppam njukkal ca na mu bindee doomu aadama waaye moo njëkk delloo boppam njukkal ca na mu teralee doomu aadama kon mu mel ni li gën a néew ci lu doomu aadama wara a seq ak boromam mooy di ko sant ci jamono ju nekk cant goo xam ni nag day ànd ak pratique te pratique bi moo lay delloo si ci zikr pratique bi moo lay delloo ci zikr te zikr mooy yëg yàlla wala zikrullahi akbar su ko defee ñu koy sant ñaan ko mu nangul nu waaye dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni luy teranga àdduna ak àllaaxira rekk ci moom la ko borom bi jaarale te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa mu yore mission boo xam ni mbooloom kuy dund ak alam boo mënta nekk yonent bi tax na nga jote ci mission bi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa naziran nit ñi di jëriñu ci moom waaye yeneen xeet yu dul nit it di jëriñu ci moom mbindeef yépp àndandoo borom bi wax leen ni nañu ko delloo njukkal inna allaha wa malaikatahu na ala nabi kon borom bi dikk na malaayika yi dikk nañ mu ni yaa ayyuha alladina amanu joxeñ waa daayiratul iman ni sallu alayhi wa sallimu taslima ba naasiril xaq bil xaq di riir suba ak ngoon ci malaanu wadifa yi ñu koy ziyaara moom yonent bi parce que borom bi nee na amul ku ëpp yonent bi amul ku gën yonent bi te kat loolu yépp teewul bi mu koy tagg jukkoom yu sell yi la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim kon mu mel ni danga nga cay dégg rek ci gàttal ni jukko ju rafet lu am solo ndax borom bi amul ko ëpp yonent bi te jukko la ko tagg waaye ñuy jaari ci buntam bu tedd boobu di yeesal sunu teggin sunu nekk taalibe abadan sunu tarbiya sunu cofeel ci ka nga xam ni moo ëmb leeru xaqiqatu muhammadiya di ko sol ci rox yi ba bu ñu gisee leer xam ni lii leer la te mu di le grand pôle secoureur de tous les temps l'incontestable qutbu par excellence Mawlaaya Cheikh Ahmed Sa Majesté Ibnu Mohammed son excellence Tijani Chérif sa bénédiction radiyallahu taala an mu mel ni it ci buntam la ñuy jaare delloo borom bi la mu moom te borom bi la mu moom moo indi thème bi ñuy waxtaane tey te mooy la ñu tuddee l'islam le seul remède de la fin des temps waaye mu mel ni it wax l'islam rek jarul continuer ndax jar na taxaw seetlu ndax bu ñu nee islaam moom dong mooy menn ndimbal bi ci aaxiru zaman war nañ la wax le pourquoi ndax religion révélée yi am nañ religion bu ci nekk it am na teggin yu mu inculqué ñi nga xam ni ñooy ses adeptes tey boo demee ci sunu mbokk yi bokkul ci islam am nañu seen aada ñoom am nañu seen éducation kon ku ci nekk am na lu mu mën a yare waaye ñoom lañu ñu mënee yare yépp moom la borom bi dëxëñ ci yaruwaay bi nga xam ni mooy yaruwaay bi gëna a bi àdduna existégul ba àdduna di jeex te mu di alxuraan parce que tawraat wàcc na tawraat téere borom bi la mu jël ko jox ko yenent yàlla Muusa aleyhi Moussa bokk ci ulul azmi min ar te yàlla waxoon na laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli kon jullit bi dafa war a accepter Moussa te boo accepter Moussa accepter téeréem waaye original ba lañu amatul ndax biñ ciy dégg moom la ñu tuddee bible de Moïse te yàlla tawreet la ñu wax waaye yàlla jël na it injiil jox ko yenenti yàlla isa alayhi salaam yenenti yàlla isa bokk ci ulul azmi min ar-rusul yàlla yamul ci cité insa ci ulul azmi min ar-rusul waaye dafa cité waale ki nga xam ni mooy la reine par excellence te di yaayam di sayyidatuna Maryam ndax dafa ni Isa ibnu Maryam kon tudd na Isa waaye dàqantele na ko yaayam ndax jigéen ju sell la yàlla jël injiil jox ko ñu war a accepter Isa alayhi salaam war a accepter en même temps Injiil waaye original ba lañu ñu amul ndax bañ ca dégg mooy l'évangile de Jésus-Christ yàlla jël Zabour jox yeneen yenenti yàlla dawut ñu war a accepter Daoud parce que salle d'attente bi jullit yi di toog ñu di leen teral pour ñu dem aljana yenent yàlla daawda la ñuy jox alxuraan mu jàng ko kon dañu war a accepter daawda waaye original ba la ñu amul yàlla ni comme amu leen yooyu yëpp nag original baa ngi nii te li dëggal originalité bi mooy dama taxaw di ko superviser di ko wat inna nahnu nazalna dhikr wa inna lahu la hafizun muy alfurxaan mu tënk ca la mu waxoon ca tawrat tënk ca la mu waxoon ca injil tënk ca la mu waxoon ca zabuur kachate ko garanti ko jox ko muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam léegi yàlla ni yonent bi ma jaare ci sa livre sacré bi di samay kàddu révéler benn religion bu fi am yonent bi ni ko ban la mu ni inna diina inda islam jeex na parce que mu ni boo jàppee ci islam dégg texte sacre bi di alxuraan nga am ci maîtrise spirituelle waxuma maîtrise bi ñuy am léegi ci langage bi ndax benn mag dañu ko wax diw xaafizul xuraan la mu ni fexe leen ko may wér di te ngeen tarbiya ko ngir mu nekk xaafisul furxaan ñu ni ko lu leen wutale mu ni parce que bu jàngee kàllaama kese du am leer gi ci xolam waaye bu leer gi duggee ci xolam kàllaama gu mu jàng moo koy njëkk jëfe ba noppi ñu wax mu indi dalilam teg ni yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluuna ma la tafaaluun ni borom bi moo ko wax nee na balaa ngay génn ni diw sangul sangul yow ba noppi léegi yàlla jël religion boobu ni soo ci nekkee adepte nangul nga Isa ibnu Maryam nangul nga Muusa nangul nga Daawud nangul nga Ibrahim nangul nga Nuux te boobu fekk na ahlul kitaab yi wax ni ibrahim foog jullit yi nangul ko ñu ni mënuñu dem ñoom ci islaam ñoom jullit yi sans yenent yàlla ibrahim ñu ni lu tax ñu ni ndax maam la ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak li yonent bi wax ci moom yëpp ci jàlloore waaye yàlla ni koon kat comme dañuy utiliser le prophète Ibrahim pour wax ni jullit yépp war nañ ko nangul faw ma jël statut Ibrahim def ko ci alquran ni bu ngeen di nangul Ibrahim it na ngeen ko nangul ci ni mu mel maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakina kaana hanifan musliman wa ma kaana min al musrikin kon yàlla wutal na ko statut ci biir islam la ëpp solo ca statut bi yàlla nee na le Ibrahim est un musulman mais un bon musulman mu ni le prophète Ibrahim alayhi salam n'est pas un hypocrite wa ma kaana min al mushrikin nga jàngat ni kon statut bi yàlla jox yenent yàlla ibrahim ci alquran doy na pour nga mën a comprendre lan mooy l'islam kon l'islam li ci jiitu mooy fexe ba soumettre sa bopp borom bi subhanahu wa taala fexe ba nekk un bon musulman fexe ba nekk un digne croyant waaye fexe ba moyatu hypocrisie ak égoïsme waaye est nekk un bon musulman yomb la parce que yàlla su ne faw nga nekk jullit bu baax day teg ay conditions condition bi ci jiitu mooy dàq hypocrisie ci sa xol moo tax mu tontu ñu doon wax ni fii la bokk ni wa ma kaana min al doy na tontu ndax wax na leen ñoom ki ñu doon wax Ibrahim li mu doon moo tax faw nga dàq hypocrisie ci sa xol faw nga dàq égoïsme ci sa xol waaye loolu yëpp nag dafay ànd ak nga am confiance ci borom bi pour être un bon musulman laa wax soo nangoo doon loolu ba noppi nag am honnêteté bu mot sëkk waaye nekk ku juste nekk ku intègre islaam soogay nangu ni am na candidat mais li des nag mooy ndax candidat bi dina passé wala dañu koy recalé islam ay àttewaat islam am na candidat ndax nangu nga léegi nag islam ñëw tëral julli juróom di la xool wa aqimu salaat mu tëral julli juróom di la xool ndax am na candidat mais ndax kàndidaa bi day passé wala dañu koy recalé indi na julli juróom teg mooy examen bi julli suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis julli gee muy xool nag nan ngay fexe ba julli boobu nga defe ko ni ko borom bi bëgge ba borom bi nangu ko pourtant am na ñuy julli ñu rakale leen ndax dañuy julli ba julli juróom bi mot ñu génn àdduna présenté yàlla dossier bi ni ko candidat laa woon ci islam def nañu examen atmina ndax julli yaa ngi nii yàlla xool gis ci ay rature yàlla xool gis ci désordre yàlla xool gis ci manque de confiance yàlla xool gis ci hypocrisie yàlla xool gis ci tappale ci biir julli ja mu ni nañu ko rakale bind ci suuf fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraauuna wa yamnauna almaun def zéro jox malaayika yi ñu jàlle pourtant julli nga waaye xoolal signature borom bi ci suufu julli bi reconnaître ko moo tax julli bi muy reconnaître nangu ko mooy ba nga def ba mu apprécier waaye taxul nga jàll ba léegi ndax islaam day dellu si waat ni shahru ramadan ñëw na yàlla may na la wér may na la fekke ñi ngi xool ndax dinga ko woor ndax ci charte yi la bokk waaye ñuy xool nag nan ngay woore ndax da ngay sóobu rek ca la tuddee grève de la faim wala dangay ngay woor ngir jëmmi borom bi nga woor ba mu jeex ñu analyser jukko yi benn par benn islam teg ba léegi candidat bi jàllagul ñu ni azaka ñëw na ñi ngi xool ndax am nga nga am ba noppi loo war a génne azaka ñu ni ndax da génne ak alal ni mu soree ci ki nga xam ni dafa bëggee alal ni muy soree ci moom ñu jël ki bëgg sëf kay million ni ko ndax da génne azaka di seetaan nga ni man kat julli naa ñu ni jàll nga nga ni woor naa ñu ni jàll nga asaka ñëw nga ni mënuma ko génne ni ndax dangeen may jàlle ñu ni duñ la jàlle ndax mënunu la yóbbu aljana inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi am anna lahumul janna yàlla ni engagé wu nga d'accord joxe nga sa bakkan yaa ngi julli joxe nga sa bakkan engagé wu nga yaa ngi wóor mais côté azaka comme mënoo ko alal ji foog mu ñëw soxlawu bakkan bi kese anfusahum laa wax waa am amwaluhum ñu ni kon nañ ko recalé gis nga ñu recalé la ci azaka waaye nga génne azaka yi ñu ni ñu ngi xaar aji màkk aji màkk ñëw na ñu ngi xaar ci charte yi la bokk am nga wér bi ñu ni waaw am nga moyen bi ñu ni waaw ñu ni ndax danga nga dem aji ak boo demee it nan ngay defee sa haj ndax dangay dem pour tourisme wala dangay dem pour aj ndax li ñuy tere màkk yëpp sartoo nga ko balaa ngay dem nga demandé lan lañ fay tere ñu ni bu fa gàjji kenn bu fa gaañ kenn bu fa xuloo kenn bu fa gaaral kenn bu fa saaga kenn boo ci def rek tourisme nga defoon waaye ajiwu di la déglu nag nga dem def lépp borom bi xool nag ndax nangu na walla nanguwul bu nangoo nag ni léegi nag baat bi borom jëkke baat bi candidat bi jëkke nan la ko candidat bi dunde te mooy baatu shahada bi baatu ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ni nan la ka candidat bi dulle ndax daf ko wax rek du matin au mu fàtte ko wala baat baa ngi ci moom toujours ñu ni nan lañ koy xame yàlla ni balaa ngeen koy jàlle na ngeen bàyyi ba mu sax ci baat bi wadkurullaha kathiran laallakum tuflihun kon moom baat boobu donte dugal na ko ci islam daf ci war a sax ba mën a ràññee lu baax ak luy safar ñu ni bu ci saxul nag xanaa wax baat bi rek yam ci fàtte baat bi dellu si waat ni jàll na yàlla ni déedéet di signé nan lay signé innal insaana la fi xusri nit nga waaye amoo définition kenn xoolagul sa dossier ndax jàll nga wala rëkkale nañ la illa alladina amanu wa amilu saliha mooy tax ñu xam ni jàll nga watawasaw bil xaq mooy tax ñu xam ni am nga mérite watawaasaw bi sabr mooy tax ñu xam ni am nga endurance ci sa jàllu yàlla moo tax yonent bi ni yàlla soppul musulman bu faible parce que nee na faiblesse bi koy dal moom musulman bi bu yàggee dafa am lu muy tâche ci islam waaye Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani Chérif ni ma li yonent bi di bañ yépp musulman bu faible am na faiblesse boo xam ni moo gën a grave te nee na mooy faiblesse intellectuelle nee na mooy faiblesse mystique waaye nee na bay ray borom nag mooy faiblesse spirituelle te faiblesse spirituelle li koy def ci nit mooy manque de lumière manque de lumière li koy engendrer ci nit mooy manque de repère manque de repère li koy indi mooy manque de méditer manque de méditer ndax nitu yàlla yi dañ daan méditer ci univers bi nitu yàlla yi dañ daan méditer ci borom bi nitu yàlla yi dañ daan méditer ci lépp loo xam ne dégg nañu mu yëngu ndax xam na lu yëngu rek mi ngi dellu ci sabaha lillahi maa fi samawati wa maa fi ardi xam nañ lu yëngu rek mi ngi dellu ci yu sabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi ardi malikin xudusin azizin hakim ndax quatre points point bi dellu ci côté mulku bi borom bi dong ko moom tabaraka alladi bi yadihi lmulku wa huwa ala kulli cheyin qadir mooy point buy dellu ci côté mulku bi moo tax mu ni qul illahumma malika almulki tuati mulka man tachaau wa tanziu mulka miman tachaau wa tuizzu man tachaau wa tudillu man tachaau bi yadika alxayr innaka ala kulli cheyin qadir innaka ala kulli shay'in qadir boobu la indi ci tabaraka allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir moo tax bu la mystique yi day jox ismullahi al azam di la centième nom dañ lay wax nit dafa ëmb bi yadihi almulku moom la ëmb ak wa huwa ala kulli shay'in qadir ñu ne ñaar yooyu nu tur bi ëmb moo tax mu am doole moo tax ko côté mulku bi boroom bi dong ko moom waaye bu ñu dellusee ci côté xuddus bi borom bi fexe na ba rox bu nekk bi mu koy indi ci monde shahada sellaloon na ko ba noppi sell te baa ngi jaare ci résonance spirituelle bu yonent bi ca alamul arwaax alastu bi rabbikum xaalu yonent bi moo ni balaa résonance spirituelle am bëtt mystère yi dugg ci rox yi ñoom ñëpp àndandoo ni balaa boobu la rox yëpp sell mais xam nga li des mooy sell te boobu bu amee ba noppi nan nga koy préserver boo ñëwee ci monde shahada mu ni soo koy préserver nag da ngay seeti beneen tur ba mooy al aziz al aziz nag moom la borom bi di jël léeg def ko mbubb di ko solal ay jëm ñu di leen tuddee ay xalifatullah mu jiital yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solal ko mbubbu al aziz yonent bi mot martabaam yaatu darajaam rëy kàllaamam leer lu mu wax lu nekk ñu jële ci njëriñ yàlla solal na ko mbubbu al aziz ba bu feeñee moom yonent bi wax la walla mu jëf ci yow moom ngay gis waaye li nëbb mooy borom bi moo tax bi ko gaañi xamul borom bi ni pourtant wa maa yantixu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon mooy wax waaye man lay jottali parce que lu mu wax ci man la jóge waaye yonent bi it segg mbubbu al aziz boobu ci xaqiqatu muhammadiya dellosi ko ci beneen tur bi muy xakim jël mawlaay cheikh ahmadu tijani dénk ko tariqatul xaq def ko mu doon xakim lu cheikh tijani mas wax nga dégg ci solo wax waaye lu mu mës a waxit roxu jëriñu ci mu dénk ko ko moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ci taxawaay boobu nag dajale adepte yi nga xam ni yépp ci islaam la waxoon ni ay candidat lañu ni leen kaay ma jàllale leen ci fiis parce que am na ñu ci am oral dem ba yàgg ñu recalé leen am na ñoo xam ni mujj dañ leen repêché am na ñu nu bàyyi ñu échoué kay ma jàllale leen d'office ñu ni ko nan ngay jàllalee ñëpp d'office mu ni fexe ba kenn ku ca nekk priorité am di am d'office ba noppi laata muy bokk ci islam ñu ni ko loolu noo ko mën a dégge mu ni mooy julli woor génne azaka aji màkk ba noppi nag loolu yëpp bu dajee nga bañ ca gis sa bopp nga bañ ca dégg sa bopp bañ ca naagul sa bopp sa priorité bañ nekk di xalaat li ma julleeg li ma woor rek li ma jaamu yàlla mais sa priorité nekk allahuma salli ala sayyidina muhammadin il fatiha lima uxliq wal xaatimi lima sabaq nasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al mooy sa priorité nekk julli ci yonent bi yële yépp mot na yonent bi mooy le profet de l'islam waaye yow sa priorité mooy julli ci ko ñëw tuddee le prophète de l'islam te di sayyidina Muhammad Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ci ci côté shahada boobu ak côté xaqiqa boobu muy yar sa rox muy yar sa rox ndax lislaam la wax le seul remède la wax bu dee le seul remède war na am base solide base solide bi mooy fexe bi rox bi jóge woon alamul arwaax waxoon ni nangul na borom bi rox boobu bañ rëcc Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani jël ko ci base solide bi teg ko fa ni ko tànk yaa ngi ci sama condition ci biir Tijaaniya ruux bi du la ci mukk nga ni ko condition yooyu yan mu ni wadifa suba wadifa ngoon def sa laazim def sa xadaratul juma waaye xam man maay kan ba noppi parce que koo xamul ku mu doon mënuloo ànd ak moom mu ni mooy seen remède bi de la fin des temps ndax yéen a ngi ci axiru zaman te mu ni bu ngeen nekkee ci axiru zaman mu ni yàlla dafay def la tuddee inversé tendance bi ku nekk ci dëgg la joxeñ ni ci tappale nga nekk ki nekk ci tappale la ñuy joxeñ ni ko ci dëgg nga nekk loolooy xew axiru zaman boo dëggoo di dem sax ñu dem ba yàgg ni wératul yonent bi bi mu dëggu ànd ak réalité am di dox mais demoon na ba espace intermédiaire yi shahada ak bi nit ñi di wax jinn yi di wax ñu ni wératul dem ba ni nañ ko bàyyi ndax idéologie bi muy doxee loolu doxalul àdduna doxalul mission comme moom nee na borom bee koy wax ak ni borom bi sore muy dégg kon jàppe leen ko ku wérul yàlla di ko setal ni ko wa ma saahibukum bi majnun gis nga seen waaj yi ngeen naan wéru yàlla ni ak wér seen waaj yi ngeen naan xel mi neexul ak a xel bee neex waaw xam nga léeg-léeg nit gis loo xam ni moom dongoo ko àtt bu ko tegee ci penc mi ku ko dégg mën na ni mënul nekk te dafa am lu Serigne Babacar si daan wax nee na li mu nangu mooy man mënuma waaye nanguwul nag ni kenn mënul waaw nit nee na mën nga joxeñ nga ni mënuma waaye bul ni kenn mënul parce que rox bu nekk na ko yàlla bind bokkalug rox moroomam ku ci nekk yàlla dénk na la sa mission waaye mission ba lu muy rëy rëy base fondamentale bi mooy islam mission ba lu muy rëy rëy base fondamentale ba mooy xaqiqatu muhammadiya léegi nag xaqiqatu muhammadiya du lu nopp di dégg lu rox di dund la moo tax rox yi koy dund ñu di leen segg di leen segg ci milieu bi ñu ne pour sauver leen lan la leen di sauver est-ce que ci réer déedéet kenn du dund ci xaqiqatu muhammadiya di réer dañ leen di sobe ci ténèbre ndax rox dana leer ba noppi di dund ci ëtt boo xam ne lépp lëndëm la waaye pour sauver ko yàlla da koy rocci ci bërëb boobu génne ko ci idéologie aada dugal ko ci idéologie xaqiqa ndax bu desee ci aada sànq yàlla génne ko ci idéologie aada dugal ko ci idéologie xaqiqa ci xaqiqa na moo doxe mooy kenn ku ca nekk la ngay dugg danga nga ciy gis sa moo tax bi mag ñi di wax ni axiru zaman dana toll koo xam ni xel yi dana lëndëm ba kenn dootul xàmme cheikh ni sii dana am ñu xàmme ñu ni ko lu tax mu ni parce que nit su baaxee xam na ni baax na bu bonee xam na ni bon na bu xamul ndax baax na walla bon na mi ngi ci guddi goo xam ni biir setagul kon kenn ku nekk li ngay dund xam nga ko Mawlaay si Ahmed Tijani Chérif na ci biir organisation boobu pour sauver nit ñi ci islaam mu joxeñ joxeñam joxeñ bi mooy mu indi shariatu muhammadiya teg muy tarixa tijaniya waaye mu mu mu defe fondation tarixa bi xaqiqatu muhammadiya moo tax boo ne tariqa tijaan misaan bi yëpp shariatu muhammadiya mooy miir boo waxul lu ko fondation li ko fondation tariqa tijaan laa wax muhammadiya moo tax yonent bi bëtt xayb dugg shahaada fekk Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani Chérif toog mu ni ko anta waladi xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan ñu ni ko te nuuraani doomam la ñu ni ko te ruuxaani doomam la waaye ñu ni ko te shahaada it ñii sëtam ma ni xut bu boo demee am nañ ca dégg-dégg bu gën a yaatu boobu ñoom dañu ne anta wala di xàqan bi jiitu mooy xat miya anta wala di xaqan bi ci topp mooy kat miya anta wala di xaqan bu mujj bi mooy xaqiqatul maktum nee nañu ñetti cër yooyu la yonent bi doon fésal ci cheikh di ko wax ni ko minute bi ma gisee balaa ma lay jox tarixa tiijaan làq nga ñetti cër yooyu ba nag loolu tax mën nga nekk taalibe Tijaan te doo nekk taalibe Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani waaw parce que mën nañ lay gis ci malaanu wasifa mën nañ lay gis ngay def xadar mën nañ lay gis ngay laazim waaye bu ñu nattee sa cofeel ci cheikh mu woyof doo taalibe ndax ku am kilifa bu kenn mënul définir cëram cër bu ko waay ràng dafa xamul la muy wax waaye Cheikh Tijani Chérif dépassé na cër boobu ndax diggante xaat mi diggante kat mi ak diggante xaqiqatul maktub moo tax ma sànni woon benn laaj bu ma laajoon ñi sëggoon ci téere yi di jàng laaj bi dama ni leen bi ci jiitu mooy yëguma Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani fenn fu mu jëlee woon bi di bindal boppam téere kon dañu interpréter waxam Aliou Harazim bi mu koy interpréter it daf ko wax naka nopp yi mën a déggee parce que ni mu jógee ci Cheikh Tijani bu ko waxoon benn nopp du ko dégg ma ni boobu benn laaj la bu ma leen sànni ma ni deuxième laaj bi it damay laaj Ababacar Umar Ousmane ak Alioune ndax yonent lañu mu mel ni lisaanul xaal moo ma tontu ni ma déedéet du ñu yonent ma ni ay borom cër lañu kon fu ngeen leen di boole ñu ne ah buñ dul yonent de mënuñu dugg ba ci kuréelu wëli yi ma ni loolu laa soxla woon dégg it ni benn laaj bu ma sànniwaat la ma ni laaj bi mujj it mooy xat mbiya lan lay tekki ñu ni xat xatmiya la muy tekki daal mooy ki nga xam ni ci xutbatul usna bi ko borom bi jox nekk na ca intermédiaire di sof ñi nga xam ni ñoo war a nekk wëliyu leer ba ñu mën a nekk wëliyu te di ko jële ci yu dàddu yonent leer gu fi jóge it war a dem ci yonent bi jaar ci espace intermédiaire ma ni kon boobu benn laaj la bu ma entre parenthèse ni luy kat lii ñu ni kat mii de xamuñu xutbaani yu ba ban xutbaani yu la waaye xam nañ nag ni mooy kiy dox ci diggante espace intermédiaire bu yonent bi sallallahu alayhi wa ak yonent yi ma ma dimbali leen xutbaani yu bi nekk ci kat mii ca baxrul kanzi la ñu ko tànke muy xutbaaniyatul kanzam borom bu wër leer leer a koy wër ma ni mooy kat bi ñu ni d'accord ma ni entre parenthèse ni leen luy xaqiqatul maktub téere yépp tëj borom téere yi sëggi xool ma ma ni leen xaqiqatul maktub mooy yonent bi sol na manto manto ba mu sol am na lu làqu ca gannaaw manto ba mais kenn mënu ko gis li làkku ca gannaaw manto ba mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ki nekk ci kanamam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ma demandé leen nag ñu tijjiwaat leen téere yi ñu tijji ma ni ndax foofu am na ko fa xëj diggante boobu diggante manto bi ak ki ci gannaaw diggante nit ñi ak ki leen di sof di leen tapp ci leeru Muhammad pour ñu nekk wëliyu diggante yonent bi ak yonent yi seen dénkaane ñoom seen intimité ñoom ma ni ndax seen njën ku fa xëj bu dee yonent xëj na fa wax leen ma ñu ne ah, daan nañu dégg de am na yonent boo xam ni gindi woon na ki bokk ci ulul azmi mina rusul ni xaadir ma ni ku leen yëgal ni xaadir yonent la ndax xaadir laaj ngeen ko Cheikh Al Hadji Malick mais dafa ni leen al saalih ku baax la mais fa la yam ak yéen parce que xam na lu mu leen wax ci xaqiqa bu leen neexee ngeen sëgg seen téere ma ni leen kon xaadir amee na mission waaye ma ni da ngeen fàtte ni Aliou Harazim ci boppam nettali na leen ni leen Mawlaay a Ahmad Tijani daan na dal dal bu mu dul waxe ñu toog ba yàgg demander le pourquoi mu ni xaadir moo doon laaj ay masala te jaaxalu leen ñu ni wax nga dëgg ma ni lool loo leen di wan ni xaadir day dellusi ci lumière u Tijaani ñu ni ëpp na na xaadir di dellu si ci lumière ba ma ni bu ngeen ñëwee deux ca Arafat da ngeen yëg ni leeram di jóge ci essence mystique ma ni loolu laa leen defal entre parenthèse borom téere yi ba ci kanam parce que yu ñu tuddee des questions sans réponse dafa mës a existe ci monde musulman bi waaye lu ci nekk yàlla dafay bàyyi ba jamonoom jot mu jël un missionnaire ni ko décortiquer secret yooyu loolu tax mag ñi bañoon nit wax nga ni gisuma ko ci alxuraan taxaw weddi parce que ku mës wax nga ni gisuma ko ci alxuraan taxaw weddi man ñi bu ñu ko yëgee dañ lay convoqué boo ñëwee ñu ni tegal sa baaraam nga teg ñu ni bismillaahi rahmaani rahim nga bëgg romb ñu ni alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin waaye balaa ñuy dem ca dalika alkitaab alif lan la laam lan la miim lan la di la déglu nga déglu déglu ñu ni ñu dimbali la tuuti kaaf haya ayin saat lan la di la déglu ngay wax ñu ni taaha lan la di la déglu ngay wax ñu ni haamiim lan la di la déglu mujj na ñu ni yow yi yëpp mënoo ko décortiquer nga ni gisoo ko ci alquran te yàlla du tudd baat bu amul signification soit da koy xam walla xamuloo kon la ngay rejeter mën na am ni ma nga ca biir alif la ngay rejeter mën na am ma nga ca laam la ngay rejeter mën na am ma nga ca mii nga dellu si waat nag buñ lay delloo si waat mooy dañ lay yar dañ lay yar ci sagesse sagesse bi mooy dañ lay wax ni loo xamul rek na nga ci maandu ba borom bi di dikk ak la mu lay tekki loo xamul na nga ci maandu ba borom bi di dikk ak lam lay tekkil gis nga ajjuma ji paase yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ma ko ca biir masjidil aqsa Isa ibnu Maryam ma nga fa woon Nox ma nga fa woon Moussa ma nga fa woon ndax ñooy samay seet yonent bi ni nii Jérusalem mel léegi diggante Israël tey ak Palestine am na ñu tey ñaan jàmm waaye xam nga jàmm ju lu tax muy jafe mu ni mooy toog ci suufu jàmmul te santoo borom suuf sa ba loo ca ñaan yàlla du ko nangu wax bu jar dégg la ci masjidil aqsa ajjuma ji laa la wax bii paase ulul azmi mina rusul ñi ngi toog ndax ñooy sama seede yonent bi wax ko ci kanamu isa ibnu maryam mu ni bari na kuy ñaan jàmm ci jérusalem bii diggante xeex bi israël di xeex ak palestine mu ni lu tax jàmm ja di yéex a nangu mooy yàlla du nangu ñaanu ku toog ci suufu jàmbur te santul que mu toog ci suufam ba xam nga loolu la wolof di tekki naan lëg su lekkee alal naka gërëmee coy moom la wolof di wax yonent bi dafa bëgg wax ni njukkal bi ñu waroon delloo yonent yooyu nga xam ni dëgg nañu seen tànk ci terre sent boobu wala teer sacrée boobu njukkal boobu manqué moo tax leneen lu nu tegaat ci ay théorie ay diplomatie lañ koy teg te am na problème boo xam ni diplomatie bi koy régler Cheikh nee na du bii ñuy wax fii nee na diplomatie bi koy régler c'est mystique ma ni ko mystique mu ni trop parce que nee na am na luy metti nee na faw yàlla jotal waxtu te conflit boobu ci yooyu la bokk conflit boobu ci yooyu la bokk faw Isa ibnu Maryam dëggaat tànkam ci monde shahada pour lu tey organiser ñu organiser ko mais nag du tee yàlla di nattu jullit yi di xool fi seen iman toll waaye di leen fàttali l'essentiel te dégg nañu réalité yooyu ci monde musulman bi tey boo demee yaa ngay dégg jokkalante ba am ca diggante les États-Unis d'Amérique ak l'Iran am mbokk mu ma laaj loo ci xam ci conflit boobu walla lii nuroog sax conflit ndax conflit bi du fan yi xëy na dafa gën a intensifier mais yàgg na ma ni que li ma xam ci conflit boobu daal bariwul benn côté mooy ñuy dund yor seen doone ma ni ko kooku ci côté Amérique laa koy delloo loolooy seen idéologie beneen côté mooy ñuy dund di xàjjale boobu ci côté Iran laa koy delloo loolooy seen dund ñee dañuy yor puissance ñii di diviser parce que boo demee États-Unis seen doole la ñu xam soo demee Iran yonent bi Alioune lañu xam keneen koo ca teg ba mooy tuur ñu duma la ndax seen idéologie la xamuloo ñu bare léeg dañuy wax te duñu gëstu mais am na parti yoo xam ni Iran boo ko tuddee Ababacar Oumar Ousmane dootoo ko nettali te loolu xàjjale la waaye moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif lu mu wax xam na la pourquoi te lu mu nu wax it baa ngi ci internet muy wadifa tisbaar 2016 wax naa leen ca wasifa boobu bu leen neexee jël vidéo bi gëstu léegi ni leen Cheikh Tijani Chérif yabal nañu Iran deux mille vingt cinq ni na ngeen fa dem. xam nga boo ne yabal nañ ma Iran deux mille vingt cinq dañuy laaj loo fay wut te Cheikh Tijani moo ni ma demal ma Iran dañ la fa jox podium boo taxaw di discours ayotolaay yëpp daañu toog ci sa wet nga wax ca Ababacar. wax ca uman wax Ousmane wax Alioune wax yonent tibi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu la geesoo ni lu tax nga jël sa kaala gu verte gi tegoon ni leen lii moo tax te dañ la nangu te loolu 2016 la pour wax la ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane dafay anticiper luy xew lépp mais base yooyu yëpp tey nga dund ak ak xaqul yaqin mooy faw nga dund ci kii quiétude gis nga bu sa xel dalul doo xam fooy teg sa tànk te xam nga luy jànn xeloo jullit ba xelam du dal mag ñi nee nañu bi ci gën a gaaw mooy parparloo ku gis muy parparloo xelam du dal parce que buy dee kii mi ngi naan ah walla tarixa diw di ma dégg kat nangam nangam muy dee benn sëriñ bale ma nga naan ah, balaa sëriñu eh, dëkk bee di ma dégg ka nangam nangam xelam du dal moo tax mag ñi tere par parlu ni fexe leen dund ci quiétude ñu ni ko dund ci quiétude bi lu koy joxe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ni ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nee na zikr mooy dimbali bi ba def ci moom quiétude buy tax lu mu yuutooti jot ko ci wàllu roxam waaye fu mu toogati it xelam daal di dal su ko defee nii la jamono di dox waaye comme yàlla dafa dogal ñëpp xam nañu Dakar ak na mu xate ñuy bañ a guddal ndax ku ñu xam ñun ku ñu xam ñun xam li ñu mën ci rox su ñu ñëwoon ne asalaamualeykum ngeen fay ñu ñu ñibbi war na leen doy waaye yéene leen wax lii xew ci axiru zaman ak islam niñ ko jàppe moo tax ñu am jotaay bi ak yéen su ko defee ku nekk na jàpp ko ku nekk na tey kurusam waaye ku nekk na na génn li boppam xool ndax li mu dugg daf cay avancé di gën a jege yàlla wala day dellu gannaaw nga jàpp walla nga bàyyi loo dugg di jàmm yàlla mu yokk sa imaan jàppal loo dugg julleetoo wooretoo génn ci ca ba muy dell loolu mooy digle bi ñuy digle mooy ñi nga xam ni ñoom lañu bokkal béréb bi beneen bi nga xam ni yóbbante la bu ñuy yóbbante ñi nga xam ni ñoom ñoo fi toogal nguur am na yóbbante buñ leen di yóbbante yóbbante ba mooy kenn ku nekk ci ñoom na fexe wéet xool digganteem ak boromam dimbali askan wi waxuñu ni mën nañu lépp waaye lu ñu leen mën a wàññil nañ leen ko wàññil train de vie bi suñ ko mënee baaxal ñu baaxal ko ndax ñun ñëpp nous sommes des citoyens sénégalais te bëgguñu nag doon égoïste mooy tëdd sa climatiseur ëpp la sa ceeb ak dëwlin manqué wul nga ni sama yoon nekkul ci ñuy souffrir ci mbedd bi man yëg naa ni am na ñoo xam ni metti la ci ñoom ñëpp ko mën nag yàlla teg ko seen loxo ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbali leen lu ngeen ca mën rek ngeen wàññil leen la ca des ca la ñu war a ñaan nag ñun kooku du duñ leen ko wax ñoom ka ma kay wax mooy borom manteau bu rouge ba Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ni ko nañu dimbali donte sax xaw na metti tuuti waaye mu am lu ñu saafaraal ci yiwam ak richesse bu yaatu bi te benn salaatul fatiha bu sëppoo jàng ko suñu bopp doy na pour ñu dund dund bu neex kon kooku yaa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani na nga ñu dimbali li jafe ci réew mi yépp yaa ko mën a yombal yombalal ñu ko dund yi jafe it yombalal ñu ko rox yi feebar it wéral ko poos yi dara nekkul it def ci dara sa xaqiqa benn salaatul fatiha boo ko waxee musaafara kon yaa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dimbali ñu wax benn salaatul fatiha boobu saafara la réew mi bépp métit boo xam ni mës na ko jànkoonteel loolu nag ñaanal naa ko kuy jullit ak ku dul jullit ñaanal naa ko ki nekk tiijaan ak ki dul tiijaan ñaanal naa ko ki am ñaanal naa ko ku ñàkk yaa Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane yi sa yërmande mote na dimbali ñu jàppale ñu jox ñu sa loxo téel ñu defaral ñu abadan lil abidin kon yal na yàlla taxawu ñëpp yal na yàlla mottali yéene ñëpp yal na yàlla dundal ñëpp ci xàqul yaqin yal na yàlla may ñëpp wér ñuy delluwaat di ziyaare suñu mbokk yi fi teew yëpp doore ko ci le colonel Ababacar Sadikh ñaar ak sécurité bi mu àndal euh, Seydi Mouhamadul Bachir Diouf mii di suñu kóllëre bopp di suñu soppe ci fànn yëpp macha allah alxalifa Cheikh Umaru Sabali bu Dakar bii nga xam ni tey daayiratul iman bu Dakar la ñu fekki woon Seydi Mouhamadul Bachir mii lu am solo la wax waaw moo tax ma tëje ko ndax dama dégg mu tudd dara benn kàddu am kum ko jotal ci mystique ma di ko wax benn nettali boo xam ne ñàkkul ki mu concerné mu ngi fii ci tànt bi toog benn mbokk mës na jóg te mbokk moomu c'est un mystique ñu ragal ko ci asrar mu gis benn mbokk fii ci daayiratul iman bu ndar di ñëw Medina Cheikh mbokk mi di ñëw Medina Cheikh xëy suba ñëw ni ma dama gént di fi ñëw waaye dama gis am benn mbokk di ma dogale tàllal ay loxoom pour ma bañ jàll ma dem demander nuuru yaa élu lu xew lan la mu ni ma li xew de jarul woon sax nu la koy nettali mu ni ma ndax dafa am benn góor dafa jël benn aliwa xànjar bind ci diw moomu waaye nuur yaa élu ni li ma ci xaw a def ree mooy dafa bind ci wet gi nee daf leen di dëddale mu bind ci wet gi Cheikh Ba Nour Ndiaye lu neen man xaw ma kuy Cheikh Ba waaye mën ni xëy na ñàkkul Seydi Mouhamed El Cheikh li ci jub ma jël aliwa xànjar bi delloo la mu defoon ca tànku càmmooñam bàyyikaat loolu góor googu bi mu nekkee hôpital médecin yi dañ doon jaaxle ci li dal tànk bi dañ daan chaîner tànk bi ci lal bi mu bif ko wàcce waat dañu mujj di chaîner tànk bi ba benn ngelaw di ñëw ngelaw li ànd ak moom génn nga àdduna pour wax li Cheikh Bachir wax laa ci doon sof tuuti diggante 2016 ak léegi li nu def ci man ci mystique bu matul 20 millions yi xaw na ko jege ndax ay dollars lañ doon yónnee ak ay euro ak ñi ko doon encaissé ci diggante Linguère ak diggante Casamance ak Saloum ma di ci teg sama bët wax naa ko ba benn góor gu xëy rek ëppal ndax ëppal ba mooy dafa dem jëli xaj wut ci deret ba tomb ca lam ca tomb bind ci sama tur ba mu paree cheikh ñëw ni ma xoola góor gi balaa dee ni xaj di bawe lay bawe senegal gi lu nekk fii xew waaye ñooñu nag man jéggal naa leen ci xol bu sedd guy li tax ma jéggal leen teel leen jéggal mooy pareeguñu ñu ba léegi maa ngi gis wax naa ko commandant male ma ni ko man bu may defi tournée nationale damay dem ba bëgg demande waa lu xew dem nañu mbuur may waajal tournée nationale war a dem la matin ma wasifa ba noppi teg nii sama bopp ni naa dallu tuuti deux minutes yu nekk na waa machine yi ma jógal xoola diw la mu jëme woon ci yow parce que bëgguñu nga dugg ci oto bi agsi ma ni man xanaa su ma agsee àdduna day tukki waaye ma ni leen nag danaa agsi ñu ni ma lu tax ma ni leen maa ngi débuté sama mission 2022 il a 2075 nii ba 2075 ci barke Cheikh Tidiane Chérif pour dëggal ko rek pour it ñuy joxe dollars yeeg euro yi ñu noppalu tuuti nag sonn nañ lool waaw ma seen jot nag wax dëgg yàlla ndax dama nekk ci grande offensive spirituelle rox yi ma war a raxasit dafa bare moo tax ma xaw manqué temps tuuti waaw di jox ñëpp rendez-vous rek comme ni ma ko waxee woon daayira yi sore yi waxoon naa ni suñu paree ñu ni jéggal nañ leen te bàyyi rek ñi jege Dakar ak Rufisque bu subaa ci ngoon ñu fekk ñu ca Cambérène ñu riiralaat fa wasifa ba ca alxalifa Cheikh Jibi Jaabi riiralaat fa wasifa ba ba wasifa ba dugg ci géej gi suba si ba pare gu ma it le 15 février it nañ ñu fekkaat ca Rufisque ndax amoon nañ fa le 14 le 15 laa bëgg ñu amaat fa le février grande offensive spirituelle bi di dox ba de bu 2022 jotee ñu indi c'est le moment kon réalité yooyu rek la su ko defee nag yàlla na yàlla taxawu ñëpp yàlla na yàlla mottali yéen a ñëpp yàlla na yàlla fexe ba ku am aajo mu fajal la sa aajo waaye aajo yëpp nag borom bi delloosi ko ci ni nga xam ni noonu la gënee ci nit ki nga xam ni moo ko am ñu ñaanal leen gudd fan ñànnal leen wér waaye wax leen rendez-vous yi du jeex abadan waaw te noonu lañ koy doxale loolu yëpp nag ñu àndandoo ci grande offensive spirituelle bi moom laa lancé 2020 waaw muy dem rox yi di set muy dem rox yi di set bu ñu demee ba 2021 ma lancé loo xam ni duma ko wax ci français ci wolof laa koy wax mooy gàcceel ci réew mi képp ku ni woon yàlla mayewul ma gàcceel la wan la may bi yàlla may ni ngeen ko bind ci mille affiche yi 2021 2022 nag ma yëkkati sama loxo ni seela le moment jeex na jëm ak moom nag ba 2075 amul mystique amul wérd amul takk amul dara nii ba 2075 ñu jàng fatiha salaatu salaam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 يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا سيدي يا في توق الشيخ يا حبيبي يا في توق اليونان يا نور toogal yàlla ya mawlaaya yaa di sangu jamono Seydi Mouhamed El Cheikh ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya Seydi ya fi toogal Cheikh ya habib ba yaa Madina borom moo la tëñaloon fa Makka ngir nga jotee ji lépp luy nekk te àdduna kon jot na ngir ñu tëbb ci leeru sang